maa sant yàlla bu baax di julli ci yonentam di sant sumay waajur bu baax. di nuyu waa Bawol yëpp nag di am mbégte bu baax di nuyu képp ku teew fii tey. tey moom Babacar di nga ma baax mënul ñàkk daanaka li ñuy remercier moom parce que waa ji li ñu waroon wax daanaka bu dégg tey gis nga li teew yëpp wax naa ko. digle matin rek gars yi ñu ngi fi am yor organisation bi maa ngi sant waa Bawol yëpp di gërëm waa Medina bu baax a baax a baax. mi ko rey baax na wala mu wàcc. di sant nga xam ne moo waral lii ak ñoom Cheikh Ba merci di nuyu waa di nuyu waa Bawol di nuyu waa Refane bi nga fa laa juddoo. di nuyu champion yi fi teew yëpp suma frère yi tey gis nga leen. Hmm. tey xamoo benn équipe xamoo école de lutte Bada Dione xamoo école de lutte Cheikh Mbaba xamoo équipe de euh, équipe Bawol xamoo équipe de. Ngunjaan Ngunjaan ñoom ñëpp a def en masse ñëw bàkkuwandoo affaire bi jaar yoon. kon maa ngi sant sama serviteurs yi yëpp du ma tudd tur foofu ñoom ñëpp maa ngi leen di sant leen gërëm di wax ne gis naa li ñu taxawee ci combat bi ñoom ñëpp ñoo ñëw di ma contacter di ma jàppale wax dëgg yàlla. tey ba tay jii ñu ñu accompagner kon mon frère merci beaucoup yalla na leen yalla defal ay ndam ku ci am combat ku ci amul combat yalla na nga am combat inshallah di sant aussi suma suma suma yaay bu baax ak suma papa di leen gërëm di leen ñaanal bu baax di sant aussi suma famille yëpp waaw di sant famille bi yëpp nag di sant aussi ñi nga xam ne tey ñoo doon teg ki doon woy làmb ji ki doon woy bés bi ak euh, Babou fay xam nga di sant aussi Bada jonne xam nga waa marché Sandaga aussi maa leen di gërëm di leen seen délégation bi def Daouda Sarr ñoom Mbaye Gambie ak képp jóge ci lieu boobu maa ngi lay gërëm di la sant di sant monsieur le maire bu Touba Toul délégation mu ngi nii Ahmed Gueye ak monsieur le di demal demal demal mm, monsieur le euh, bu Refane Djibril Thiaw maa ngi koy sant ko gërëm aussi waaw gis ngeen Ablaye Tine tey lépp lu mu doon def def ko bàyyi ñëw di ko gërëm di gërëm waa Xombal yëpp xam nga di gërëm euh, képp ku fi teew. waa presse bi bi jëlal fii. maa ngi leen di sant leen gërëm parce que woote naa ngeen ñëw woyu si moom aussi maa ngi leen di remercier bu baax a baax a baax te yàlla di gërëmal encore fois waa Medina bi comme ni ko sawaay waxee. entraîneur yi nga xam ne ñoo nekk Medina yëpp du mën a ñàkk ma lim leen tey muy ñoom Diak Sarr Ili Soukey ñoom Wilas Baye Bada Sow Mbaye Ndewaan suma entraîneur nga xam ne tey fii laa débutant ak moom fii ñuy defee affaire bi tey ak ñoom bàyyi falu fa yegg ñëpp falu ngoom xam nga ñi nga xam ne ñoo yore xale bawol yëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant suñu grand frère gis ngeen ko tey Salloo ñoom Mbaye Diouf ñoom ñëpp teew nañu Ngunda Thiaw gis ngeen ko tey li mu def ñoom wuli ñoom ñëpp fi teew kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne vraiment vraiment kontaan naa bu baax a baax di sant aussi presse yi Ilimane nga xam ne fan si kële tafaatin yëpp moo ko jiite moom Ilimane xam nga lépp lu mu yëkkati dama yëkkati teg ko ci loxol Siga Dior mu jàllale ko kon maa gërëm bu baax a baax a baax di sant aussi am satu am satu maa ngi lay gërëm suma jigéen aussi maa ngi lay sant waaw di la gërëm di wax ne kontaan naa ji yow lool lool lool waaw bu loolu weesoo nag xam nga comme ni ma koy waxee ñu ngi ci waajtaay bes te bes bu nekk dafa am lu maay comme ni ko Socé maa ne wax xëj na nit ku ne da nga koy nangu tolluwaayam moom Socé. waaw ñu ngi koy gërëm aussi di ko sant aussi ci tolluwaayam ak fi mu waxee Socé waaw. ñun nag ay jambaar na ñoo xam ne nii dañu nekk ci waaru saa su nekk saa boo ñëwee dañuy fekk ci waaru muy neex ñu ngi ci muy naqari ñu ngi ci amuñ lu ñuy tiit amuñ lu ñuy ragal. maa ngi remercier tey daanu de tey daanu de waaw. maa ngi remercier Dioune famille Dioune papa Dioune Elas Dioune Masek Dioune nga xam ne tey bu ma jógee bu ma jógee quatre heures. attends attends bu ma jógee quatre heures. attends attends di entraîné ñoo may accompagner ñoom laay àndal. kon ñooñu mënu ma leen bañ a sant. yaa ngi dégg. Mhm. voilà kon ah. jël micro bi moo gën. mais yaakaar naa même bu ko waxante tamit mais am na lu des parce que man tey Modou Anta seetlu bi ma def ci Tafatine mhm. boo xam dafa mel ni maasam da koo wàññi. Mhm, lu bari cest à am souplesse di déplacé wu mbaadu la amoon. ca Elton moom nga ñu naroon indi laat ca Elton ja wala yàgg Bombardier maanaam. koo xam ne doo ko jàpp te bu la bëggee dóor dóor la. te doo ko yóbbu fi nga ko yóbbu parce que dama gis tafaatin boo xam ne daa mel ni jour football quoi. Hmm. lu xew. waaw mais sant yàlla rek xam nga ne moo waral bés bi tey ren booy xool tey li ma dagal oh, maa ngi koy sant di ko gërëm wax dëgg yàlla di sant famille yëpp ko gërëm aussi di euh, gërëm aussi fi ma jógee suma dernier voyage muy waa Abidjan yi waaw di sant coach David Moussou Kamso tey li ngeen di def nii ñoom ñëw toog xam nga di ko bàyyi xel bu baax kon ñooñu duma leen bàyyi xel parce que maa ngi liggéey ak parce que affaire bi il faut nga eh, déconcentré parce que waa ji mu jaar ci ay ah, xam ay préparation ak ñoom seen eh. moo bëri voilà loolu la quoi waaw waaw Mm-hmm. waaw. acca loolu. waaw. waaw loolu weesoo nag adduna euh, dafa am ñaar yu fi nekk. Mm-hmm. mooy dund ak dee. yàlla dafa dogal euh, suñu benn grand frère bu ñuy wax Mbaye Thiané Tine moom sama mag bi ñuy ànd guddi ak bëccëg yàlla dafa def mu dëddu adduna bu yàggul dara keroog bi may tourné émission bi ci corniche bi mu ngi ci suñu ginnaaw. yal na ko yàlla yërëm grand mbay. amiin bi ak bu góor aussi maa ngi koy jaale. non boobu doxul fil bi mooy dox. fil bi mooy dox waaw fil bi waa PAK ba yëpp dinañ ko jaal aussi. voilà ak Modou Modou waaw Modou waaw waaw du ñu wax ci Modou aussi. man mii di wax teg na suma lamb contre euh, contre El Diouf. ma koy jaal njabootam njaga ñaa mm-hmm. ngumba mu ngi fi moom moo ko moom moo leen présenté woon macha allah waaw maa koy jaal di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla xare àjjana xam nga ah. bi nga wàññi nii ba ni comme jour nii souplesse nga soxla pour rapidité pour mën a xam nga làmb ju dafa am lu préparé combat ko noonu ah, moo tax nga wàññeeku nii ba jeex nii. man xaw ma ne dama wàññi poids sax na loolu yow yaa ko gis quoi. gis nii sa bi. waaye mais lamb moo leen laaj rek lamb ju ne ak li mu laaj rek ak na koy pare. est-ce que Bombardier oyof bëree na ak moom. Hmm. mbër moo xam ne boo ko xuusee doo ko yóbbu fi nga ko bëgg a yóbbu. ku oyof est-ce que dina ko mën a jàpp saax saaxee ko plaqué ko dëbb ko ay naax sol ko daan ko te loolu la gars yi di xaar bi yoon jël bu set. waaw loolu yaakaar naa dina ci am parce bi ñu newuñu fa nag di bëri jëmale ko kenn xamul dañuy ñëw daan ko ci minute dem suñu yoon quoi. ak sa forme bi. Dakar la yéen ñëpp di ngeen posé Babacar boo paree rek nga wax. Euh, ba tey nga maanaam du ngeen fa yàgg bi yoon sa su la déggee kon. combat bi maanaam Tapha da koo bëgg battre ci ay parce que temps bi bareetul léegi ñaari 5 la ak 3. ça veut dire que temps bi du grand combat 10. voilà. Mm. kon maanaam combat bi yow da nga bëgg cinq premières minutes yu njëkk yi nga tàqali ko ci ak Bombardier non man laa la wax ak li ma liggéey laa la wax waaw man ak li ma liggéey waaw deux minutes combat bi du moom incha allah deux minutes doo bëre ak moom deux minutes incha allah foo teg ci doole wala ci bët incha allah rabi Bombardier da nga ko gën a pare incha allah rabi non du benn sax du benn yaa gën a pare liggéey naa li may liggéey maa ngi xaar le février teg incha allah ndax ya ko gën a pare laay laaj xam nga kenn ku ne li nga liggéey nga gem man lima ma liggéey laa gëm man limu mu liggéey man gëmuma ko man limu ma liggéey laa jeena bu ma ñëwee damay appliquer lima ma liggéey jeena amul Ah, waaye Tafatin, ba day amna leneen luma ma ci si ah. sa seet sorte bu mujj ak booy ñaar dama la sax ay nit yo xam ni ñoñu mom ay mbeur lañu won kenn ki mom moy mool un kenn ki mom moy góor gi sa mu melni ni tamit ay bagasam legi. da ko gën a yaatal ba daal daa mel ni euh, daal mel petite côte bi dafa daal mel petite côte bi dafa dugg. Bombardier di bëre est-ce que maanaam ñëw battre ko ci deux minutes dina yomb. waaw xam nga mbër yi dañoo bëri te wuute kenn ku ne ak la ngay teg am na ñoo xam ne tey mën nañ laa tegal loo xam ne loo mën indi rek ñu yàq ko. Mm. loo mën indi rek ñu yàq ko. Mm. voilà noonu la demee loolu nag ay mbir la danga koy xam ak xam lan ngay teg tegal sa adversaire loolu lépp maa ngi ciy waxtaan ak staff bi ñoom cuun papa papa cuun elas cuun xam nga ñoom Badajon ñoom Gérard ñoom ñëpp ñu ngi fi ay mbay ndewaan mooy staff bopp ñu ngi ciy changé et tout jéena chaque jour ñu ciy wax ko ardo wala door mu daanu mën nañ ko ci xaar lépp la mun a am lamb la bëre dóor la surtout amul leneen. ku pare na ñëw Gartombe waaw Gartombe maka nee na ndax yaa ngi ci Gartombe bi yaay génne wala dañ lay génne ndax gar daa metti waaw gar xam nga gar moom <laughs> da ngay def benn cercle xam nga waaw ñii dugg noonu la demee waaw xam nga soit dama ko doon def ba ñu may woo añ sax xam nga ma ngar ko rek di gar waaw di gar kon lu ma xam la lu ma mën la te système la aussi te xam nga moo ko bëre dañoo xawta sore waaw parfois dama koy teggi du mën a ñàkk. kon combat bi gar tombé la. non xam nga gar moom mënta ñàkk. dina ci takk dinaa ko tegal gar dinaa ko dem suma incha ah. nee na caq bi andi woon nga ko. Eh, eh, yow ak yow yow ak ki nga xamante mooy Boy Niang andi andiwaat caq bi tegtalu caq caq bi lan la. waaw lii sama bagage su maam la rek lii moom xam bagage su maam la rek. man micro na ko jël. ok waaw.

kon du ma ñëw taxaw ku mel ni ay Bombardier di ma jéem a déstabiliser ci leneen non non non lamb il faut nga dëgër bopp mën doog ci mën a nekk boo ko ba dëgërul bopp mën a ci nekk. waaw ah, mais léegi da nga wax léegi lenn. waaye solo te dafa mel ne tamit aussi loolu yaa ngi koy sóoraale. Euh, maanaam ci wàllu xar fu ko loolu moo tax sama ñu war a insister tamit aussi ci wax jooju est-ce que tey li ngay wax fii euh, ak ak say supporters ak journalistes yi est-ce que lu duus di ko confirmer Tapha Tine. ci lamb la ñu ne affaire yi bagages yi moom mënu cee ñàkk loolu du dara. incha allahu rabi. Mm. ok dañuy dalal suñu xelu supporters yëpp. mais man wax ne man Tapha Tine li may liggéey moom laay yóbbu ci lam ji man du ma triser ci lamb. benn rek xaw ma triser. dama ñëw jox la li ma am lépp daan dem suma yoon. loolu moo nekk. ok ci côté. waaw ñëwal. Eh, ah. waxal rek. nga ni euh, mbër yi bala nga xam ne ay tappat lañ hmm. nga duggandoo ak ñoom ci biir géew bi lépp lu ñuy wax ci biti lañ koy waxee mais boo duggee ak ñoom ci biir géew ba jàkkaarloo ak ñoom nga gis ne ay tappat lañ lu waay waxoon googu noonu gis nañ ni mos nga jàkkaarloo ak ki nga xam ne moom mooy bombardier est-ce que tappat boobu gisoon nga ko ci moom waaw di di di sant aussi waa Seras ah, mal on Père Diogoy Jonn maa ngi leen di sant bu baax di sant fukki pàkk yi ak ñaar di sant Bawol yëpp hmm. ci question bi mu ne mbër yi nga dugg mu ne ndax ñin la tëjal ak digg ci ah, ci ragal bi non loolu moom loolu moom arbitre yi rek ñoo ko mën a siise quoi i làmm mbër muy tiit ak yu kenn xamul loolu moom arbitre yi <laughs> ñoo ko mën a siise yow am na ci làmb ji wax dëgg yàlla mais xam nga du ma citer turu kenn quoi mais am na ci làmb ji wax dëgg yàlla gis nga tiit ci bombardier parce que moom guerrier la jàmbaar du tiit vraiment suñu grand frère la nag ñu ngi koy nuyu ne ñëw xoolal teel xool fi muy daanu ndax am na ay xeer wala déet balaa ko jëlee nee na ok Babacar man li ma koy laaj kenn ku ne xam na ne combat bi dafa am solo sa carrière même Bombardier aussi tamit. Baye Fall bàyyi ñu ñu liggéey ok question bi ma lay laaj combat bi dafa am dafa am solo ci sa carrière parce que bawal ñi ngi xaar roi des arènes amaguñ ko Bombardier nekk na roi des arènes ñaari yoon ngay bëreeg moom combat revanche li ko gën a metti loolu la combat bi dayoo bi mu am importance bi mu am ci sa carrière est ce que yaa ngi koy bàyyi xel combat bi ak lu mën a xew muy défaite di victoire di niil ndax looloo fi am. waaw aussi di nuyu aussi suñu nijaay Mor Ngom Bawol di nuyu aussi. Euh, sécurité bi fi nekk yi mooy semi waaw maa ngi leen di nuyu di leen gërëm aussi comme da ngay nuyoo voilà di jéeglu ko mm. ci question bi ci question bi combat bi dayoo bi mu am ci sa carrière tante woon nga roi des arènes 2013 ñàkk ko Bombardier nekk na ko ñaar yoon nga may ko revanche mu fas yéenee fayu retraite ak moom est-ce que xam nga combat bi dayo bi mu am ci yow. waaw dayoo bi ma xam ak impact bi mu am ci man. Mm-hmm. comprendre nga. Mm-hmm. moo tax may liggéey liggéey boo xam ne du ma jàkkaarloo Bombardier daan ko ci ay minutes dem suma yoon man laa gëm gëmu ma ne leen. loolu la loolu la quoi. léegi man lépp man moom waa Bawol nañu ma xaar bu yàggul dara dinaa leen titre roi de arènes. lan mooy lan mooy l'essentiel bi gars yi nañ nangoo bëri ak man loolu donc laay sakku quoi sakku ma leneen. voilà côté mobilisation bi Babacar. non waaw balaa mobilisation bi dama ko déggoon keroog mu wax waxu top 5 mu ne moom xeexam bëriwul. waaw combat bi yëpp top 5 la yu bari bëri. est ce que combat bi mën nañoo xalaat jël bi am top 5. dafa est ce que mën ngaa yóbbu Bombardier top 5. waaw en général ku ma daan top 5 lay doon village bu ñu fonto taxawal comme champion la mbër la comme mbër yi may daan rek bu ñu fonto loolu la waaw dañuy ok côté mobilisation bi na ci ay caq bi dinaa ci waxaat de caq bi caq bi daa mel ni Kolibar la jógee waaw sama bagage yi maam la maam yi ñoo ma ko jox mobilisation bi village may ñu ñu liggéey waaw mobilisation mobilisation bi moom bawol yëpp ñu ci comme maire yi ma fi tudd léegi xam nga ku mel ni ñoom Gallo Gallo Gallo Babou Diourbel ñoom ñëpp xam nga ñuy waaj mobilisation bi waa buntu Pikine ñëpp xam nga Bada Dione yaakaar naa gis ngeen ko loolu rek mooy taxawaayam fédéré boy yi fobere supporters yi xam nga ñu gën a mobiliser wu pour waaj bés bi loolu la du loolu waaw